mbokk yi noo ngi fii ci Jolof fan ci Jolof mooy ca ginnaaw gasaan wala kon diggante gasaan ak Thiel nekk ci tool yoo xam ni moom la sëriñ ba siiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir sanc tudde ko Hisnul Abraar waaye moo moo waral it gor bi nga xam ne daf ko woote ñu fas yéene ñëwaat fi ak yéen bayit bi ma jiital léegi sëñ Tuubaa da cee tudd ñett yoo xam ni dafa mel ni boo ko boolee mooy doon ak murit mooy xidma haddiya ak bëgg mooy xubbu xidma xubbu haddiya yett yooyu yëpp mbokk yi boo ko boolee day man a firi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxan saydul xawmu xaadimahum ki gën a sangu ci mbindeef yi mooy ki leen di liggéeyal sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdu Xaadir mii nag mbokk yi wax naa ne ku ñëw fii ci tool yi di nga xam ni liggéey bu tedd bi fi sëñ waa bàyyi woon moom mi ngi ci bàyyi waar wu rëy waaye mbokk yi mu di ci wax wax ju am solo joo xam ne mat naa bàyyi xel dafa wax ni su sama jëmm ji kenn du fi ñëw waaye dama ko woote ngir sëñ tubaa taalibe sëñ tubaa wuy si ngir sëñ tubaa loolu lii firnde ji mbokk yi xool leen fii ni mu yaatoo fa ñu bayan daawaati jéeg ak fan bay daaw ak fen bay ren fenn bokku ci ren jiit gis ngeen ko nii ngeen gisee mbooloo mi ñu fas yéene goraat gor bu yeer soo sii kenn mosu koo bay sëñ bee ko jëkk bay kon moom daa dem foo xamante ne kenn mus koo bay mu fas yéene koo bay ba mu àgg waaye lam cay ñoral mu di ko wëlbatikuwaat di ko jox Cheikh Mamadul Muntaqa addee Serigne Touba mbokk yi kon jàpp naa ne kuy wut exemple man nga koo am ci sëñ Bassirou Mbacké Sëñ Abdou Khadir waaye képp koo xam day wut royukaay it war nga koo mën a am ci sëriñ Bassirou Mbacké Sëñ Abdou Khadir ndax lii mu def jàpp naa ni liggéey bu rëy la ndax nit ñi ni ma ko waxee dañoo am maru liggéeyal Serigne Touba moo tax saa yooyu ku woote liggéeyal Serigne Touba te mu te nit ñi yër ba yëg ni lii liggéeyal Serigne Touba la dootuñu ci am sago mbokk yi xoolal bokk yi ngi ngeen di gis bàyyi seen i kër bàyyi seen i warab mooy warabi liggéeyukaay bàyyi seen i place fii sori lool waaye dañoo bàyyi lépp ñëw di yenn fii di fi fanaan di fi liggéeyal Serigne Touba ni ngeen ko gisee ca Dalia nga xam ni kenn ku ne day wut rek fu mu tëdd ba bët seet mu daal demaat ci waar wa mbokk yi kon lii lu am solo la loo xam ne war nañ cee gën a góor góorgóorluwaat rawatina noonu ñi nga xam ne dañoo doon ay ndaw rawatina noonu ñi nga xam ne dañoo yaakaar Serigne Touba war nañoo xam ne kon yoon wi yoonu jëf la waaye yoonu xidma la waaye yoonu ibaada la kon al ibaadatu wal xidma moom la ba Bassirou boole fii ndax nii ñu leen ko wane noonu la amee ca biir daara ja ay donga yoo xam ne ni daara jàngay riir ci njàngum alxuraan daara jàngay riir ci ci ci njàngum xasida daara jàngay riir ci ab yar ci ak taalibe képp ku fa ñëw di nga gën a xemmemaat doxinu Sëñ Tuubaa kon mbokki dama ànd ak yéen rek dugg ci li nga xam ne mooy biir tool yi walal leen ak mbokki taalibe lépp loo xam ne ab xew-xew la fi gis ngeen ko noonu xam ngeen fii nag déji ëkk moo fi am sëñ jili bu sala àndal ci caméra bi sëñ jili ji ëkk euh, yaakaar naa ña ngi ko gëjën a gisee ca xel koom waaye bu demee fee di ko gis mooy kon Euh, dañuy fekk garab gi xam ne lii garab la ñu dijji dagg garab gi bu ñu daggee car yi dagg bànqaas yi waaye fas yéene li nga xamante ni mooy déjj ëkk gi ba mu àgg ñu daal du koy lukkat tool bi nag door a valable ngir ñu mën koo ji nañ ànd ak sëriñ jiili su ko defee lépp loo xam ne xew-xew la ci biir tool yi danañ fexe ba wane leen ak moom rawatina liggéey bu tedd boobu jërë ngeen jëf أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا خاطبته في البر والبهر وفي أسر والجار مع الهاجر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع صلاة سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بسارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيت مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة تائرة مع سلام غدا فقائرة jërë ngeen jëf mbokk yi Eh, niñ leen koo xamal rek noo ngi fii ci tool yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir eh, ci tool bi nga xam ne mooy Hisnul Abrar niñ leen koo xamal bi ñu duggee ci tool yeet eh, gis ngeen liggéey bi dafa doon ay groupe yu yaatoo yaatu Serigne Gunda Fall fekk nañ ko mu ànd ak mbooloo mu takkoo takku waaye Serigne Gunda gis na ni yéen a ngi ci yéen a ngi ci waar wi macha allah ba ñu ko tàmbalee ba léegi. sëñ Gunda Pastef bu mel nii eh, ana lan nga nu ci mën a fàttaliwaat ak lan ban yëg-yëg ngay am boo ñëwee ci liggéey bu tedd bii nga xam ni sa maam ju tedd ja moo ko doon defal Seexul Xadim waaye tey yàlla dogal ngeen di ko defal mboolem ku nekk fii ci njabootu Serigne Touba gi rawatina bi nga xamante ne Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir moo ko woote. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu baax di la ziar di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi suñu kilifa di Cheikh Mamadou Fadilou moom Serigne Abdou noonu la ñuy yeggee suñu nuyoo ba suñu kilifa ak yoonu murid sëriñ Mouhamadou Mountakha ak sëriñ Amdi Fall moom suñu Modou Mbenda ndigal lu mel nii day yaakaar naa duñ ne guleet ci ab Baye Fall xam-xam ne dafa tënku ci ndigal nag li ku ci tënku lenn rek moo la boole moom muy nga jóg bàyyil nga bàyyi kon nag bu ñëwee fii nga xam ne ni lii moom ku ne xamee ne ko ab Baye Fall muy ruuj bi nga xam ne ni moom la ñu jox sëriñ bi mu ñëw ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk ñuy liggéey ak ak taalibe yëpp ñu ñëw fi liggéeyal sa sa Serigne Touba ci ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Serigne Mountakha jaar ci Cheikh Mouhamadoul loolu daal mooy ndigal li nga xam ne moo ñu fi indi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxawee it saa su ne mooy li nga xam ne moo war ci ñun ndigal li moom li feeg matul rek amuñu beneen yitte amuñu beneen aajo ndax ab Baye Fall moom dafay nekk koo xam ne nii ci ndigal lay dox kon saa yu kàddu ndigal jógee rek war naa xam ne kàddu gi ko yeew pour mu yeewiwaat ko faaw mu wàccoo ak ndigal loola waaw kon nag ñun moom amuñu leen lu dul taxawaayu taxawaay bi nga xam ne nii rek moom la sëriñ bi bëgg saa su ajo jooju fajoo nag ñu daal delluwaat di ko déglu waaye nag duñ yeewi ko ndax dañ ñoo takk ci buum te buum gi duñ ko yeewi dañ ko yolomal rek ñu delluwaat ci yitte yi waaye saa yu ñu sëñ bi soxlaa bu ñoddiwaatee buum gi rek ñu wuy si ko waaw loolu nag moo ñu indi fii. <laughs> maanaam boo doon defal xay ma bi ngeen tàmbalee ak léegi ndax jàpp nga ne tool yaa ngi sori wala li des bëreetul waaw waaw biñ tàmbaleeg léegi ñi ngi ñi ngi ñi ngi dox ñi ngi dox bu baax a baax macha allah tool yi moom sori na bu baax a baax a baax parce que ajjuma lañ xëy xëy boo xam ne ah, xëy nañ ajuma waaye ah, ñun ñu xëyoon ajjuma booba bariwuñ mbooloo mi ñëwaguñ waaye bi ñëwee bi mbooloo mi ñëwee ci ajuma ji ñu xëy tàmbali ci samedi ji dox nañ dox boo xam ne moom macha allah tey bi ñu xëyaatee tamit doxaat nañ dox boo xam ne wax dëgg yàlla sori nañ bu baax baax a baax mën nañ daal incha allah liggéey moom fi ne ñu ngi koy jëpp ñu ngi koy jekk bu baax a baax wax dëgg yàlla waaw ñu ngi koy jekk waa kay sëriñ Ngounda Fall macha allah am na solo kàddu yi am na solo noonu ma leen ko waxee mu ngi jiital mbooloo mu am solo ñu àndandoo di liggéeyal sëriñ Touba ni mu ko waxee léegi euh, buum gi leen yeew mooy bu mu ndigal du tekk ko benn yoon xanaa kay day lii day mat yolomal ko dellu ci neen waaye du tekk ko benn yoon ñu ngi santaat suñ Touba bu baax a baax di njukkalaat maam Cheikh Ibrahima Fall kon mbokk yi noonu rek lañ ko fas yéene ànd ak yéen allah jërë ngeen jëf ngeen jëf mbokk yi ba tey noo ci tool yi noonu ma leen ko waxee woon euh, dégg ngeen euh, sikkaru Baay Faal yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek euh, xam ngeen ni daal ya day ay daal yu wuute yu bare bari macha allah ñoom ñëpp ñu ne ci waar wi waaye ñenn ñu ne dañuy ànd ak seenu njaboot gis ngeen ko noonu saa yu ñu songee benn ëkk rek daal di cay ne sëñ Malick Fall la ñu tàllal sunu micro su ko defee dinañu leeral moom ci kàddu yi kilifa gi nga xam ne moom lay waxal incha allah. ñoo ngi sant yàlla bu baax te di leen nuyu di nuyu mbooloo mi di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fa lotu wér di ñaanal sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mu yàgg fa lotu wér ak njaboot sëriñ Tuubaa gi jël Maam Cheikh Fall gépp waaw liggéey baa ngi nii comme ni nga ko gis nii rek ñu fi ma ci Thiène Jolof ci ndigalu sëriñ Mountakha Bassirou mu jaar ci sëriñ Bassirou Mbacke moom Sëriñ Abdou Khadar ñëw ci kër Abdou Sakkoor ñëw ci njabootu Cheikh Abdou Sakkoor ka fa jiit di sëriñ Fall moom Cheikh Abdou Sakkoor ñun nag ñu ngi fii ci ahlu Bayra Dial Fall ànd ak sëriñ Sohaybou Fall moom sëriñ Fall moom Cheikh Abdou Sakkoor ak magam ju baax ji di sëriñ Amdi Fall Bayra Dial moom Serigne Fall moom si Abdou Sakkoor nekk ni ci wàll comme ni ko gisee rek waaw jaa ci garab di ko déjjët di ko dindi di ko defal ba mu baax ni ko sëriñ bëggee rek di ci fasal ñëpp nag tawfeex ak taysiir ci doole maam Cheikh Fall ndax Baye Fall lii rek lañ ko xamee waaw ñaq jariñu liggéey kon nag ñi ngi ñaan aji fajo waq di xawaa yi si tam fii xidmati wa xam la maaraamoo yàlla na ko murid am ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaan ngeen yëkkati ko baax a baax ca kaw kaw barki maam Cheikh Fall waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi sëñ Malick ñu ngi ci sant baax a baax waaye maa ngi nuyu sama sëriñ bi sëñ Moustapha Fall moom sëñ Abdou Sakour faal di ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral ko ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Sakour gépp ci barke Cheikhul Khadim ak mboolem taaliba yëpp eh, ñii ñu taxawal bokk nañ ci njabootu waa Daaru Ndiaye sëñ maam Daam Ndiaye nag moom lañ fekk ci waar wi eh, niñ ko defee ci yeneen yi fekk nañ mu ànd ak mbooloo mu bari ñii ngi gas ñii ngi eh, ñii ngi ñii ngi ñii ngi dóor ñée ngi buddi ay ëkk euh, sëñ maam daam yëg-yëg bu mel nii muy liggéey sëñ Tuubaa boo xam ni moom ku xool danga koy gis ku làmb daj ko ndax aw ñaq la ñuy wetti di yëkkati doole di dóor ci ay ëkk bi muy dañ liggéey mel nii boo ci ñëwee ana ban yëg-yëg ngay am ak ban soññee ngay def ci liggéey bi. Euh, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, ma taxaw ak sëñ Maam Mbay mi nga xam ne sëtub sëñ Daaru Asan la nu bokk nag di coordonné li nga xam ne mooy liggéey bii ñii sëñ Daaru Asan Euh, ngeen fekk nu fii ci waaru wi ci tool sañ Bass Abdou Khadir yi ci waa Daaru Ndiaye nga xam ne mbooloo mii ngeen gis nii njabootu sañ Daaru Assane la euh, ñu ñëwal fi ñenn ñi euh, yëg-yëg bi bi nuy am nag ci ci liggéey bi mooy yëg-yëg bi sëñ Daaru Assane amoon ci ginnaaw Seexul Xaddim mooy saa bu ñu déggee ndigal benn yëg-yëg lañuy am ci ndigalul sëñ Touba ak ku ko mën a joxe kon loolu mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom la murid yi àndal yaakaar naa ci suba ba léegi depuis démb ba léegi ñu ngi àndandoo yor seen i xepp baramin ak pikk ak peel ngir ne liggéey bi ñuy liggéey looloo ko man looloo ko man niñ koy liggéey nag mooy soo àggee ci ak ëkk wala garab da nga koy gas dangay da ngay gas bam bam ba mu yaatu ba ba nga am euh, ba ba nga am hauteur bi nga soxla su ko defee nga doog a dagg boo ko daggee nag ci suuf ba garab gi daanu nga doog koo til felet ko doo ko dajale ko ay sébbu noonu lañ koy liggéeyee ci waxtu wu ci mën a doon jamono bii ak noonu lañ ko àndee euh, jëwriñ yi nga xam ne mooy jëwriñ yi sëñ Mbacke Mariam yi nga xam ne moom la sëñ Bass Abdou Khadir jox liggéey bi euh, muy Cheikh Mbaye ak euh, Baye Baye Baye Baye Baye Baye Modou Gueye nga xam ne ñoom ñooy jëwriñu kër sëñ Mbacke Mariam gi nun nu nekkal leen ci waar wi su ko defee ah kàddu yee cay des ñoom danañ ko mën a àggale waaye système bi li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci biir waar wi daal mooy baramin xepp ak li nga xam ne mooy peel mooy fépp fu nu àgg ci ëkk moom lépp lu fa nekk moom danañ ko fa jëlee dajale ko ci benn place ba ku mën a ñëw jëriñu ci jërë ngeen jëf mbokk yi kon ci waar yi ni ma leen ko waxee rek fekk nañ fi maam Dame Ndiaye kàddu yooyu la dénk li nga xamante ni mooy mbooloo mi alladi adido aqlami mazamanin bi afyajil kalamin sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi bil hali wal maari wa min kalami qul wa tabshira ya man lana arsaltu a ya rabbana salli salaatan naira maa salaamin bi ridaka ko waxee rek xam ngeen ni mbokki taalibe yi jóge nañ fenn fu ne ci goxi réew mi rawatina dëkk bee di Touba ni ma leen ko waxee woon léegi rek ñoom ñëpp kenn ku nekk def pas-pasam def yitteem waaye bàyyi léppam ñëw ci liggéey bu tedd bi nga xam ni Serigne Bassirou Mbacké Serigne Abdou Khadir moo koy taxawul Serigne Touba muy daara ji nga xam ni ma nga ca ginnaaw gasaan euh, macha allah muy daara ju am solo di xees Hisnul Abrar sëñ bi fan nga jóge ak tur bi naka la. waaw man ci jëwriñ yi waa Kër Sëñ Mbàkke Mariama Ndiaye ci waa Dóoru Ndiaye ci laa bokk. Mhm. tur bi naka la. Amadou Guèye. fan nga jóge naa ngi jóge Touba. Mhm. waaw ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëñ Mbàkke yebal. Mhm. muy waa Dóoru rek ñun ñëpp maanaa ni moom moom sëñ Mbàkke ah, magu ci rek waaye dafa amoon nag digganteem ak kóllëre sëñ bés kóllëre gu yàgg-yàgg boobu sax nekkul porte parole ah ñu koy doxal ba léegi ñu doxee nag ba lii ñëw ci loxo am xelam daj ci Darou Ndiaye mu ni euh, kër gu ne sa bunt sa bunt ca maam sa moom ci xaw war a jaare kon buntam ci Darou Ndiaye mooy sëñ sëñ Mbacke Mariamu buntu sëñ Cheikh buntu sëñ Bass ci Darou Ndiaye mooy sëñ Mbacke Mariamu loolu waral liggéey bi mu ko amee xelam dajul ci kenn ku dul sëñ Mbacke Mariamu Darou Ndiaye yaatu na lool waaye mu xam ne lu mu ko wax rek dana ko waxee mbokkam ñu jàppale ko ci loolu amee nag ci la ko waxee sëñ Mbacke Mariamu ci la moo ci la soññee njabootam gépp waaye bokkam yëpp itam mooy ñu nga doon waxal léegi al majlis yusra boobu ñooy sëti sëñ ñooy sëti sëñ daaru yi ñooñu itam ñoo yor daanaka wànqaay ci kër gi ñoo ñëpp teew nañ fi ak taalibe yi moo tax mbooloo mi mel nii ak mu tax lool mooy ko wax daane ko mën naa ne sa mën naa dal bu baax ni nga ko bëggee daañu ko ne defee daañ ko def baraw sax ni nga ko ni nga ko bëggee ci loo xam ne du yàgg te dana dana seel lool loolu moo waral mu njaboot gi yëpp gis nga leen ni ñëwee gis nga mbooloo mi ñu tag ko naaj wi ak tàngoor yëpp kenn faalewu ko liggéeyu sëriñ bi rek eh, la la yittewoo biñ ko bi nga xam moom sëñ Bass da koo jox itam li wax bii rek la waxaat dafa wax ni tool boobu day tool sëñ Tuubaa yi jàpp leen ku ngeen fay liggéey lu ngeen fa liggéey sëñ Tuubaa ko liggéeyal te maa jàpp kenn ku jomba liggéeyal sëñ loolu moo waral ñëpp takku nag mag gone ndaw ñëpp rek maasee ci liggéey bi di sant sëriñ bu baax a baax ndax ñun wax dëgg Ndiaye ñun liggéey rek lañ xam ku ñu sant liggéey sax dañ lay gërëm suñ jëwriñ ju mag yi nga xam ne moom la wax sëñ Bay dafa daan wax sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma dañuy sarxu day fu alal ju addi ju bëree bëri dem jëbal ko sëñ sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ne ko dañuy sarxu ndigal xam nga murit daa bokk ci li koy yëkkati muy am ay ndigal ndigal yooyu muy am di ci liggéey bokk na ci li yëkkati murit di ko dëgëral di ko jokkale diggam ak sëriñam mu gën a dëgër moo tax noonu tàmm nañ ko loolu day saan tàmm nañ ko